Amis followers, bonjour. Une version Wolof de la vidéo euh, Sénégal 2023, naa ne dangereuse. mbokk yeeg xarit yi di leen nuyu di leen sant ci seetaan bi ngeen di seetaan samay vidéo ñu ci bëre ñaan nan moom may def vidéo yi wolof moo tax bu ma defatee 2023 bi incha allah français rek dama koy def euh, wolof di wax rek ni vidéo bii nag dama ko tudd Sénégal ci at mi ñuy dugg 2023 at bu kéemaane la at bu doywaar Euh, luy waral loolu mooy at bi tàmbali nañ ko waaye déjà gis nañ coono yin ko tàmbalee biir Sénégal am na fi accident bu metti boo xam ni euh, réunion nañ ci def nañ ci yu nekk di bëgg jël ay mesures te réew kenn du ko gérer noonu réew planification nañ koy nañ koy gérer euh, munoo saa yoo nekkee njiit loo wax kenn du ko appliquer problème bu am ñu dem réunion teg seen ay mesures yoo xam ni kenn du ko appliquer mesures yoo xam ni kenn munu ko kenn mënu ko kenn mënu ko imaginer et puis après ñu ñu tëf-tëfal après tuuti dañ koy dañ koy fàttewaat yi fi jaaroon yëpp nii la woon mars bu fi bu fi mars di am xale yi jaxase réew mi lan moo am dañu def réunion génne quatre cent cinquante milliards ñu dañuy financer emploi des jeunes tey financement yooyu kenn mënuloo wax fii la dugg kenn mënuloo wax lii moo ci concret te quatre cent cinquante milliards xaalis bu bëri la tey ñu ngi naan scandale cour des comptes waaye euh, emploi bi nu ko gérer noonu avec les quatre cent cinquante milliards war na nu wax fan la dugg ak fan ak fan ak parce que tey Sénégal nekk nañ ci tartar goo xam ni jamono ji dootul ay nañu xaar ba lii nañu fal ki du ay nit yu ñuy fal mais fu ñuy dugal suñu xaalis dañ ko war dañ ko war xam ñun ñëpp dañuy fay impôt parce que dañuy liggéey te impôt mooy yow sa sa sa jàppale bi ngay jàppale réew mi ci ci nu muy doxee amul benn contrepartie donc munoo di fay impôt koo xam ni day toog fa fële di jiite bëgg ni doo si wax sa opinion mënta nekk looloo tax nag ñun suñu constitution nañu tënku jàpp ni am nañu droit wax si réew mi nu muy doxee ba mu tax ñu yëkkati kàddu pour leeral tuuti mais aussi ñaan parce que dañuy ñaan rek pour nit ñi delloosiwaat seen xel réew mi gënaat euh, gënaat yemb parce que gis nañ ni euh, deux mille euh, vingt-deux metti woon na lool amoon na fi rapport Cour de comptes ay nit yu jël xaalis. te mu nekk ñoo xam ne ay ministre lañ doon liggéeyloo ministre yooyu daw dellu ginnaaw et puis ñi ko doon def ñooñu ñëpp ay daaj nañ leen tudd mooy ñi nga xam ne ci ministère yi ñooy liggéey xaalis ñooy téye xaalis bi ñooñu euh, ma leeral si texte yi li ñu mooy au cadre nañu war a nekk dañu war a nekk ñi seen ñi seen jàng kawe ñi nga xam ne dañu xarañ ci ci ci ci ci ci loolu d'habitude administration ñu bëre dañuy dañuy nekk au cadre mais dañuy nekk cycle B léegi nag ñu ci bëri tey dañuy dem def defu tappale mooy nga dem si école yu ndaw yi nga dem fa wut fa sa diplôme boo xam ni kenn reconnaître ko fenn ñu ne la am nga master après diplôme boobu nañuy teg ñu nome la loolu moo indi euh, dans une certaine partie problème yi ñuy am parce que am na ñu ci jot wax ñoo xam ne bu ñu gëstoo amuñu diplôme yu war parce que boo duggee administration nga nekk fonctionnaire booy secrétaire d'administration administrateur civil wala ngay contrôleur euh, travail trésor impôt yu demee noonu noonu pour ñu considérer le rang A da nga war nga dem defaat concours bi waaye munoo dem nga jàng sa école yi am sa diplôme fële après nga ñëw nga ni fonctionnaire de rang A nga affaire bi du marché noonu da ngay dem nga defaat concours bi te ñu bëri tey conseil des ministres bu ngeen dégloo bu ñuy fal dootuñu fal nit sur la base de diw matricule de soldam lii la mooy numéro si administration nga xam ne boo ko waxee dañ xam ne yàgg nga yàggoo wax liggéey bi nga doon liggéey bala ñuy wax lan ngay liggéey lan lañ la fal ak koy remplace léegi loolu amul léegi dañ naan rek diw xarañ na si tel mais nit mën na xarañ si dara te kenn te jàngul fen te tab ay tappalekat rek nañuy teg parce que aussi li ñu gis mooy li ñu wax gouvernance tey dafa dafa xaw nësxaay parce que euh, amul lenn lu leer ñu ci bëree ñi gënoon xam si administration dem nañ seen yoon ñenn ñi dañ leen écarté tey ay ay am na poste yoo xam dafa nekk ci ministère yi mais dañ fay dañ fay teg nit pour wan ne la yow soreel un peu sunu sunu gestion gi demee noonu noonu dañu gis ni ñu ñuy fal ñu bëri dañu leen di fal juste pour neexal parce que jàppale nañu diw wala jàppale nañu diw loolu nag dafa dem ba dafa jàpp fonctionnaire yi ba fonctionnaire yu bëri dañu jàpp ne ñoom dañu war a def politique te maa ngi koy rappelé ñu ci bëri liggéey nañu administration liggéey nañu ak Abdou Diouf liggéey nañu ak Abdoulaye Wade liggéey nañu Macky Sall donc bu ñooñu demee it keneen ku ñëw dañuy liggéey ak yow parce que loolu nañ ko fi tegee ku mënti ñëw da ngay liggéey ak moom comme si sa bopp nga doon liggéeyal mais kenn waxu la nga dem meeting kenn waxu la nga jàppale di feeñ di défendre ay bilan ak affaire yu kenn xamul te tey loolooy problème bi mooy problème bu am même bu ci transport bi fonctionnaire bi bu ñëwee di expliquer du toog ci à côté technique mais day bëgg wax ni Macky Sall moo def wala ni Ablaye Wade moo defoon wut ku mu accuser wala wut nu mu defee ba nga xam ni dinañ jàpp ni gouvernement bi deful alors que réew kuy njëkk a si lépp gouvernement la war nekk te gouvernement boobu lu tax tuuxi doona yëpp bëri mooy gouvernement bi bu ñu seetloo ñetti gouvernement yu mujj yëpp yu yu yu Macky Sall mii ñetti gouvernement yi amul benn bu si baax parce que ñetti gouvernement yi boo seetloo ñett ñett yu nu jël ñaari baaxuñu ñett yu nu jël ci ministre yi ñaar baaxuñu baaxuñu parce que globalement xamuñu dara amuñu cursus boo xam ni war nañ leen mën permettre ñu gérer euh, euh, bureau ba di gérer ministère wala poste bi ñu leen jox correspondrul ak li ñuy liggéey Macky liggéey na ak tey euh, nit ñu xarañ ay ñu mel ne Xaafoor ñoo ñu bu leen Macky di jël booru leen yóbbu ci yenn structure yoo xam ni kenn comprendre da leen war a jox emploi wala mu jox leen jeunesse parce que ñooñu jaar nañ fa te xam nañu loolu tey euh, am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni boo leen jëlee da leen di teg si foo xam ne fan nañ leen xamee ñu mën dérouler mbir mi mais yow loo jël rek da ngay teg nit ñoo xam ni musuñu nekk ministre musuñu liggéey ñu xam leen fenn mais militant lañu rek mais bu ñu ñëwee dañuy yàq looloo am ba bërki démb euh, ministère formation professionnelle gis nañ fa changement yu bëri mais lu ci gën doy waar mooy dañu ñëw ñu am structure bu ñu doon wax PF2E muy euh, affaire jël xale yi defal leen apprentissage genre stage gi demee noonu noonu di leen fay ba ba bu ñu bu ñu mënee liggéey gouvernement bi jàppale leen taxaw mais loolu biñ koy tàmbali ki ko tàmbali woon Michel Faye la tuddoon kooku nga xam ne dafa xarañoon ci mbiru administration mais dañ ko teggi ñu teg ko fële Michel biir administration ñëpp xam nañ ko UNESCO la après dem ni continuer liggéeyal ñu teg ka teg fa benn professeur lycée boo xam ni xamul liñ ko doon li liñ ko doon doyee foofu te loolu mooy mooy lu dommage c'est-à-dire que du attaque personnelle du du truc mais dañuy illustrer wane ni des fois da ngay gis système bi lu ko gën yàq mooy da ngay gis koo xam ni dafay jàngale buy jàngale wala mu nekk proviseur lycée moom war na mën xarañ si mbiru éducation wala mu jàng beneen diplôme pour mën ñëw occuper leneen mais nit ñi dañuy politique rek ñu jëlee la si école bi ñëw nommer la poste boo xam ni yow xamoo loolu lan lay signifier et loolu moo expliqué tey nit ñi dañu bousiller système bi ba instant yi y a des structures yoo xam ne dangay dem ba problème de budget de fonctionnement nit ñi dañ koy am après lan mooy am fu mbir ma jóge yàq nañ ko ba dara nekkatu fa ku koy remplacer même buy ñëw bu amoon sax ressource du mën def dara waaye le problème mooy ñun fay tegaat sax c'est des gens yoo xam ne bu ñëwee duñ fa def tous absolument rien te mbiru jeunesse mbiru formation mbir bu sérieux la boo xam ni kenn waru ko fooye mars bi mu fi amee taqale na nu def lépp mais loolu dafa mel dañ ko fàtte parce que tey mbiru emploi dara bougé aussi si mbiru jeunesse ñu ngi koy continuer di fooye te jeunes yi tey looloo indi seen désœuvrement internet bi saaga xuloo xeex wax ju ñaaw loolu moo xew dem na ba ñi doon wax sax ci réew mi pour waslu seen àq nit ñi di leen déglu nga xam ne même li ñuy wax sax ñëpp duñ ci d'accord mais dina dinañ am lu ñu inspiré ba tegaat débat bi muy ñoom Cheikh Yérim sekk ak ñu deme demee noonu ñooñu ñëpp tey noppi nañu sëriñ si si accident bi la nit ñi commencé waat sax ñëw di waxaat mais ñoom sax dem nañ ba benn moment dem nañu toog fële parce que yi ñuy waxtaan mbiru mbiru mbiru xotti war ma mbiru wax waxu sëy ci espace public mbiru ay opposition li opposition lay ku yëngu ñu tëj la réew du fonctionner du fonctionner noonu et puis euh, lu ci gën lu ci gën metti mooy Sénégal liñ ñu gënoon xame moo doon suñuy valeur réew jàmm réew bu stable foo xam ni boo fa investir mu jur dara te loolu moo jafe tey si àdduna bi et tey loolu moo def ñun Sénégal ñu respecté nu ci àdduna Sénégal amul richesse bu tax mu nekk dëkk boo xam ni day nekk au centre du monde amul parce que ñun ci vingt cinq pays les moins avancé du monde nañu bokk ñu gën dellu ginnaaw si àdduna nañu bokk loolu moom na leer suñu bopp cest à ku nekk rek sa biir dëkk da ngay jàpp ni sa dëkk moo gën neex waaye Sénégal pays moins avancé la émergent wul sax ba tegu ci yoon bi donc il faut que yenn yi ñu sawar raison garder bàyyi moytu lu xew rek ñu ni meilleur en Afrique le plus grand le plus truc dem nañu ba keroog ñu ni Sénégal pi pays le plus industrialisé xaw ma lan d'Afrique set xaw ma lan donc ça veut dire euh, demul fenn si on fait partie des sept pays les plus industrialisés xaw ma di monde de de de, de l'Afrique mais suñuy jeune war nañu liggéey ñun war nañ ko ressentir tey qu'est-ce qui se passe dëkk bi fooye nañu lépp dem nañu ba rapport Cour des comptes bi lan la wane mooy wane na nit ñi dañuy fooye xaalisu réew mi qu'on le dise mu leer nañ. bërki démb accident am na ñu teg ministre bu koy gérer tele mu toog naan néew yi jox nañ leen euh, ndàmpaay ba néew nuñ koy ndàmpe cest dire gouvernement am na noo xam ne bu koy waxee rek da xam ni fii moom euh, dara desatu fi sa à dire yàq nañu yàq nañu lépp et tey système bi liñ ci yàq dafa bëre fonctionnaire politicien la ñu jël wala prévaricateur des gens yoo xam ne xoolal ñoom seen xel lu ci nekk euh, jël xaalisu réew tabaxi kër takki jabar seen yoon newul si réew mi avancé wala bañ avancé tey je pense que ñun loolu nañu bokk tey kenn ku nekk am na looy liggéey am nga xam-xam boo xam ne mën nga ko jaay à l'étranger kenn ku nekk am nga loo xam ni si ñun ñuy wax am na foo xa dëkk yoo xam ne bu ñu fa laajoon visa dem toog fa dund fa ba keroog ñuy dee waaye Sénégal gii suñuy mbokk fii nañ nekk lu ñu tekki fii nañ koy partagé fii nañu am pour ndamu et donc loolu du ñu seetaan réew mi di continuer sur cette sur cette tendance tey réew mi ñëpp noppi nañu looy dégg ay wax yu ñaaw rek te ñen ñooy wax ay ay nuñ koy waxate sax ay influenceur réew boo gis euh, dafa am euh, loo xam ni noonu la mbir yi war a doxe tey gisoo liggéeykat bu président recevoir man looloo ma gën metti ci ñaari at yi ñu génn Joe Biden président États-Unis même Macky Sall mii bu ko bëggee gis du dafay woote téléphone du daf koy bëgg gis gis ko dañ koy programmer lu yàgg parce que président du foox moo tax nga koy gis keroog bu ñu gisee Xaadim Samb di joxañ président te président di wax nga koy joxañ naan ko waxal naan truc lu bousiller Sénégal loolu si la bokk ay ñaaxarañ xaw ma ñun dañuy voyager on est de haut cadre de l'administration adduna bi am na lu bëri loo xam ni mi ngi dox ñun suñ loxo mu ngi si waaye da ngay nit koo xam ni kenn xamul lu mu représenté jox nañ ko fukki tablette day toog aéroport naan ñun ñuy dugg business comme si moom dafa am business boo xam ni nit ñi mënuñu ko fay te loolu lu ko waral yépp mooy nguur gu bon ak jël gars yoo xam ni c'est c'est des de yoo xam ni tey waruñu woon am audace dem toog am na ñoo xam ne waruñu am woon am audace toog sur l'espace public wax et tey loolu loolu mooy mooy lu metti ci réew mi xol nag la nit ñi di di waxe Sénégal da ngay noppi rek walla nga waxe xol parce que bu ñu waxantee dëgg réew mi lu bëri dellu na ginnaaw tey dañu jël genre mandat de dépôt koo xam rek yow bu bu waxee lu la neexul da ngay dem plainte après ñu ni mandat de dépôt denc la fa même bu ñu xamee ni liñ lay liñ lay wax sax mbiru tappale la dañuy jël mandat de dépôt jël doomu jàmbur yi dugal leen ci kaso te kaso nu mettee lu tax leeraluñu dara ci cour des comptes parce que rapport boobu buñ ci sëggee tuuti ñu bëri dinañ leen tëj parce que deniers publics nañu laal te prévarication détournement de deniers publics peine yi ci am da ngay dem sax ba sa ay droits civiques yi mën ko ñàkk dafa am peine yoo xam ni kenn mënu ko baal nit et je pense que tey war nañu gën euh, suuxat loolu war nañ ko gën lijjanti tey da ngay jël ay nit parce que dafa wax dara ñu ñu ñu dem tëj ko alors que nit koo xam ne dafa jël et il continue te lu gën metti ci administration bi nu muy doxee mooy bu njëkk fonctionnaire bu amee coow walla dara éclaté si benn dëkk gouverneur yu bëri xam nañ ko gouverneur yi dañuy gérer parce que dëkk bi lu bëri bu yëngatoo bu nit ñi génnoon grève taal pëne rek boo matul gouverneur ba conseil des ministres bi su topp dafay dem léegi nag lan mooy lan moo lan moo waral ñii ñëpp ñuy tudd ci ay catastrophe yoo xam ni dafa extraordinaire il ne son pas inquiétés et surtout ñu leen di nommer surtout man affaire Adji saar bi pour mu rafetoon am na ku ñuy wax Mamour Diallo def na deful ak lu mënti demee turam nu mu ci taqe nguur gi waroon na jël distance am mu jël teg ko fenn foo xam ne sax peut-être dinañ ko def conseiller wala dara mais kenn du ko jox en réalité les les deniers publics mu gérer contre ma leen nag si ku ñuy nommer wala ku ñu dul nommer mais réew mi dañ ko bokk dañuy fay impôt am nañu droit exiger que ñi ni fal ñu am yenn profil yi ñun waxuñu suñu bopp parce que mënuñu développer Sénégal buñ ñun lan nañu mën mooy réew mi day dox ci benn domaine ñu am ci suñu tuuti lu ñu xam suñu tuuti lu ñu mën puus ñu puus foofu ñeneen puus réew mi dox mais tey domaine boo jël. dina raar nga jël domaine yoo xam ni teg nañ fa ñu sérieux di nga gis domaine yu raar yoo xam ni deniers yi niñ koy gérer correct na boo demee ba ñu ne la Covid nañu détourné donc budget Sénégal donc euh, euh, budget daaw daaw jéeg ak ak ak deux mille vingt vingt deux bi ñu weesu donc loolu bu ñu ko lëñbatee mbaa du kon quatre cent cinquante milliards yi ñu wax cent cinquante milliards par année emploi jeune donc loolu bu ko xooloon mbaa du pense que. na ñoom raison garde bàyyi nit ñu nuy tëj jël mandat de dépôt ak euh, contrôle judiciaire def ko si bopp nit ñi ku wax nga dugal ko bu la neexee nga génne ko ni contrôle judiciaire réew du fonctionner noonu justice dafa war am parce que euh, Macky Sall ñu bëri ñu ko jàppale ñun ñi bokk nañ ci parce que nekkoon nañu université am na ñoo xam dañ doon wax ñu naan waaje mënul jiite dëkk bi parce dafa bokkat day nëbbatu si ginnaaw Ablaye Wade je dis les terme tels que les gens les les ont toujours dit peut-être ñu bëri fekkee wu ñu woon et ñun on défendait que kii jaar na fépp fu nit war jaar pour mën gérer réew te ñim ci àndaloon c'était des gens yoo xam ne extrêmement compétents moo taxoon ñu bëri oon ci Macky Sall jiite réew mi ñu bëri d'accord nekk ci ginnaawam mais Macky Sall mu àndaloon ñoom ñëpp éliminé na leen ba ci mandat bi waxoon na ni moom deful mandat mu xëy rek xel mi changé Bouba Ndour wax na ko bërki démb nee na bu ba bu ni woon deful mandat peut-être nit ñi dinañ rafetlu bilan effectivement Macky Sall def na bilan mais ñan la àndal ba mu tax mu xëy indi comportement boo xam ni nii wii ni non réew kenn du ko gérer noonu lan moo waral nga xëy nga ni lii laa wax waaye day ndi xaar population kenn du ko con kenn du considéré considéré noonu une population du du du du respect sur une population nga jàpp sa bopp buur wala nga jàpp ni da nga yow heure bu la neexee ngay toog wax alors que bi ngay ñaan voix def nga lu nekk dem nga toog si sëriñ si dem nga def lépp c'est difficile mais dëgg rek nañuy wax te bu ñuy wax dëgg nañ ko waxee niñ ko war waxee Macky Sall man ku ko naw laa mais nii mu doxale réew mi ba fii ça marché marche plus def na bilan Pont Foundiougne yéeg naa fa yàggul matul deux semaines jekk na lool baax na te gis nañ lu am njëriñ la waaye tali bi nekk avant Foundiougne ak après Foundiougne dañ ko war a defar bëri na doo daan travaux yi jeexagul ba tey terre bi c'est une bonne chose toog na fi toog nañu lu ba sonn ba ñun ñëpp ñu xàdd ni du am mais mujj na am bi mu amee it suba si kuy xëy fii dakaar di nga gis yenn zone yi doo fa nekkee da ngay tardé parce que terre bi ñett day ñëw romb ba mu mat 30 minutes doo mën dugg parce que day fees dell war nañ ko améliorer yokkaat ay wagon nit ñi mën dem mi ngi mel na dix neuf heures bu nit ñi commencé wàcc dix huit heures dix neuf nit ñi dañ leen di parquer foofu policiers yi dañ leen di parquer si gaaru port bi euh, terre bi dafay ñaaw donc mën nañu yokk ay wagon pour gérer efficacité économique bi nit ñi mën dem si jàmm ak salaam moo gën parce que terre bi nit ñi ñu ngi ci buuxante parfois te kooru daaw amoon na incident bi amoon premier jour bi bu mettee nit ñi dañu toj foofu yëpp war nañ ko améliorer aussi terre bi dafa war egg jam ñaajo te eggul jam ñaajo donc objectif bi ñu ci amoon atteindre ko l'autre élément aussi mooy ni ñu financer TER bi ba léegi dafa war leer si bopp nit ñi c'est pas parce que def nañ lu baax que dañuy fàtte parce que non du demeewul noonu nit ñi dañuy fay impôt donc dañu war leeral un état c'est du sérieux au-delà de TER bi BRT bi c'est une bonne chose ñëpp xam nañ ni Dakar xat na xat boo xam ne am nañ embouteillage yoo xam ne mais liggéey dafa am nu koy organiser mënoo ni parce que dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy defar transport bi rek dañuy bloquer fépp tey Cambérène dafa metti tey booy traversé Colobane dafa metti tey fooy traversé dafa metti nit ñi dañuy tardé et loolu indiwul efficacité économique parce que war nga mën am un système boo xam ne nit ñi dinañ mën circuler correctement le temps que ñu def travaux yi te Covid amoon na fi ñëpp ñu tëj leen c'était un moment pour faire quand même certains travaux plutôt que jël 1000 milliards kenn ko nekk xool ci def et 1000 milliards yi ñëpp xamoon nañ ni nii lay demee ñëpp xamoon nañ parce que xam nañu comment dans le système certaines personnes fonctionnent. te am na ñoo xam ni bu ñu leen falee ñi leen di encadrer ñëpp c'est des gens yoo xam ni euh, euh, dañuy xoolaat en réalité fu nu jaar te administration nit ñi xamante nañ les gens se donc il y a également euh, li ñuy wax désignation de bureau ne xam nañ ni dañ leen nommer pour ñu ñu ñu mettital population yi loolu nañ leen fi tege c'est des gens yoo xam ne rusuñu yarasuñu seen intérêt du leen lu dul bu ñu nekkee aisance yóbbu seen famille à l'étranger mën nañu def lu leen neex pour population yi mais aussi am na ñoo xam ne dañu leen jël pour teg leen pour ñuy def kàcc pour ñuy jaxase xelu nit ñi di wax yu ñaaw espace public ñàkk a ñàkk warma bi fi am warul te loolu tax na ñëpp reculer ba ci sëriñ si sëriñ si accident bi moo tax nit ñi dellu si waat di wax mais nit ñëpp génnoon nañu ci waxu waxu en réalité politique de façon globale wala réew mi ni muy doxee Sénégal nag nañu xam ni comme ni ma ko waxee euh, mi ngi dox bëri na jafe-jafe mais du exemple boo xam ne dañuy jàpp rek ni exemple la bu définitif ñun yoruñu mais am na nañu jikko yu rafet mais jikko yooyu ñu ngi làqatu jikko yooyu ñu ngi réer parce que tey nit ñi dañuy war parole bi loo wax tey suba dangay wax leneen Ablaye Wade wax na fi waxeet Macky Sall mu ngi nii kenn xamul day mandat wala du mandat et puis ni gars yi dem leen toog te constitution wax lu leer nañ nul ne peut munoo def te Macky def na 12 ans te munoo def 12 ans yow projet infrastructure réussir nga. finance publique bu leerul mais comportement nit ñi yàqu na administration dafa nërmeelu donc sur cette base mënoo ñëw rek ni def naa bilan que dama war faluwaat bilan falul kenn programme mooy fal nit ñi dëkk bi dafa war avancer te Sénégal waroon na dépasser fii te on a eu beaucoup de scandale si mbiru xaalis on a eu beaucoup de jafe-jafe si ay tëcc ay nit brimade ay nit ñi noppiloo ñeen ñi et cetera te tey c'est dommage ku mel ni Cheikh Yérim Seck doo gis télé muy wax parce que ñun daf doon daf doon neex mu wax nga contesté mu wax nga ni du nii et puis bi da doon teg si lu technique mais dañu am gouvernement boo yoo xam ne dañ dem ba benn moment ministres yi moom ñoom ay opposants lañu c'est des gens yoo xam ne c'est comme si réew mi opposition moo koy gérer nguur gi day wut réagir on a un gouvernement qui réagit alors que gouvernement dafa war agir opposition nekk si ginnaaw naan baaxul mais tey yow da ngay jéem contrecarrer opposition bi loolu nag moo nër moo nar nërmel réew mi te nañ ci jóg wax dëgg euh, réew mi citoyen sax kenn xàmmetu leen nit ñi ci mbedd mi nañ nekk di yalwaan euh, koo gis léegi ñaan la def en réalité règle générale euh, ñi yor tuuti sax dañuy nëbbatu parce que munuñu ci xajal ñëpp tappale bi bëre et je pense que yooyu war nañ ci war nañ ci war nañ ci dellu siwaat waat yi ñu yor nag aussi muy pétrole gaz dañuy nax rek naan nu ay ressources gi demee noonu noonu Sénégal amu fi ressources yoo xam ne extraordinaire na lu mu bëree bëri mais nag mën nañu permettre ñu développer wu mais lu tax mbir mi xaw niroog naxe munoo am ressource yoo xam ne 2023 nga koy nga koy exploité nga ñëw ci 2023 boobu nga yokk petrole nga yokk nga yokk carburant tey oto oto nit ñi pour mu daw c'est compliqué te loolu mooy transport bi dafay yokk kenn mënu ko bañ courant bi mi ngi nii nen day yokk kenn mënu ko bañ mais vie day gën cherte te déjà cheroon na donc ñun li ñu jot wàññi fu mu nu jëme jeunes yaa ngi nii liggéeyuñu nañu waxante dëgg même les gos qui sont derrière la paire di jàpp ni Benno Bokk Yaakaar mooy permettre ñu génn si xale yooyu ñu si bëri dañu xaddi parce que gars li ñu leen wax demeewul noonu réew kenn du ko construire si ay tappale nii création emploi création entreprise la création entreprise processus la war nañu mën wàññi impôts yi war nañu mën def yenn plateforme yi war nañu mën gëstu plus sérieusement li ñu wax écosystème entrepreneurial gouvernement bi dañ jàpp ne boo financé rek da ngay dem DER lu mu financé financé du dem fenn 3FPT lu mu formé formé du dem fen ñu brave fa nekk mais du dem fenn parce que c'est c'est un truc global boo xam ne ñëpp ay liggéeyandoo munoo jël gouvernement boo xam ni état boo xam ni ñetti structure ñeent ñooy liggéey le reste yëpp toog ñu leen di jox budget ñuy consommer gars yi def lu leen neex ça ne devrait pas se passer comme ça et puis liberté d'opinion nañ bàyyi nit ñi ñu wax parce que nit ñi bu ñu amee lu leen metti bu ñu waxee sax au moins dinañ giif waaye même nit ñi vidéo yi ñuy def dañ leen di jëm interpeller affaire demee noonu réew mi dootul woon loolu parce que du looloo taxoon ñu fal te mag yi ñi mu àndaloon ñu falal ndong moom ñi taxoon ñu wóolu ko ñooñu ñëpp nekkatuñ ci ginnaawam te ñu mel ne Ismaël Madior Fall nga xam ne bi mag yi falu moom mu ngi woon université di teg théorie yu nekk ci étudiants yi étudiants yi gëm ko mu nekk koo xam ni bu ne woon euh, constitution bi lii la te même bu dul loolu sax nit ñi d'accord si tey xoolal ñoo ñu tey ñoo dem nërmeelu carrément ci ginnaaw ay ay affaire yoo xam ne di légitimer loo xam ni même nit ñi sax jàpp nañ ni lii du sakoog Macky Sall moo tax. et donc ñun li ñuy woote mooy même opposition bi yëngu yi ñu yëngu nii indi nañu jafe-jafe yoo xam ni pour seen bopp ñoom parce que ëllëg yi def na douze ans mënutul tegu nul nëppa nañu wax def na douze mënu ñu jëmee vingt ans jikko yi di gën yàqu mënuñu jëmee vingt ans si gestion des des des deniers de cette manière mënuñu jëm ci vingt ans di tëj ku ku leen neex et cetera ñu jëm ci vingt ans si ay façon nit yoo xam ni nekk devant la scène di def lu leen neex avec une telle arrogance boo xam ne nit ñi dañu fay seen impôt te xamuñu ci loolu la reposer dafa war dem c'est fini maintenant lan mooy am alternance mooy amaat soit APR la keneen di jël wala benn mbokk yaakaar mu jiite wala opposition ñëw mais ku si mënti ñëw Sénégal mënutul tolérer li ñu jot tolérer Macky Sall Macky on lui tolérera pas ce qu'on a toléré à Ablaye kooku moom moom xam nag ñi mu àndal xam nañ ñun ñi ñëpp xam nañ donc kuy ñëw it kenn du ko tolérer ay zone de mu ki période de de de latence boo xam ni dinañ la permettre nga toog amatul Sénégal même opposition bi luy seen problème mooy bu nu ñëwoon concret ngay def bu nu ñëwoon rigueur nañu indi autrement di nga gis koo xam ni dina ko fi coup d'état muy Macky mii wala muy opposition bi nar ñëw après effective éventuellement comme mën nga fi gis les scènes les plus dangereuses parce que Sénégal encore une fois c'est pas de l'exception nañu bàyyi nax suñu bopp aussi affaire bi quand tu pétrole gaz les forces étrangères forces occultes forces occultes mën nañu pénétrer dëkk mais day fekk ni corruption moo koy lal dëkk bu dëgg dëgg lal corruption lépp du fa def lenn tey dem leen ay Qatar dem leen ay dëkk luñ la wax ni dañuy corrompre et cetera c'est des pays qui seen frontière kenn du fa duggee noonu y a des pays yoo xam ni am na loo xam ni sañoo ko fa def te loolu ça commence par du sérieux et je pense que réew mi war nañu mën dem dem vrai vraiment vers ça l'exception sénégalaise n'existe pas bu ñu nax suñu bopp naan ay mënuñu am ay coup d'état bu ñu nax suñu bopp naan mënuñu am yenn mars bii li fi am violence boobu ku mu yéemul man yéem na ma ku mu tiitalul tiital na parce que bu mu amee ba tey dara changé sur la situation des jeunes bi mu amee ba tey dara changé wul sur la situation de l'éducation encore une fois il y a quelques jours j'ai la formation de certains étudiants mais tu te rends que da ngay gis léegi étudiant bu def trois ans quatre ans mi ngi première année ba tey wala deuxième année tey suñu demandé étudiants yi examen yi ñuy def ils vont dire que première semestre année année daaw la et université mel loolu noonu et qu'est-ce qu'on a fait pour que la chose se dégrade de telle façon étudiant boobu def quatre ans pour nekk première année moom kañ lay am diplôme kañ lay liggéey et kooku ngeen jàpp ni du frustré wu kooku ngeen jàpp ni dafay toog si il n'a pas d'opinion il ne se révolte pas mais nit ku nga xam ne dafa sentir ni li mu li mu li mu bëgg dañ ko ko xañ mais dafa dafay dafay révolté wu encore une fois il nous faut savoir raison garde delloo si suñu xel xam ni dëkk bi dañ ko bokk ku nekk mënoon na jël wàllam dem yoonam de mais dëkk bi dañ ko bokk te buñ ko bokkee nag benn moment am na fu muy toll ku noppi rek da ngay complice il ne s'agit pas de xeex man xeexu xeexuñu Macky Sall xeexuñu kenn ànduñoo ak opposition politique nu kenn du exiger kenn mu politique parce que même politiciens yi taxaw tey ñu ci bëri am na li ñu lay won dañu am limite technique parce que tey c'est des projets de société nañ ñu waroon proposer tey 2023 nañ nekk année bi dañu waroon tàmbali année bi ak politicien bu nekk def déclaration pour le projet de société bu muy proposer 2024 parce que 2024 début d'année na ñuy def élection mënuñu nekk si xeex naan ay projet naan jiiñ na ko jël ay xale yu jigéen yoo xam ne lu leen neex nañuy wax ñoo xam ni vraiment kenn amul fierte sax problème bi ñu koy évoqué léegi ñu jël yooyu tekk sur l' espace public war ma xotti war ma yi devant kilifa diine yi kilifa aada yi ba tey kenn sañatul wax et je pense que war nañu jël recul ñu góor góor góorgóorlu xoolaat investissement fu ñuy def xaalisu réew mi Macky Sall aussi xam ni dafa war conclure parce que boo defee mbir ba mu sore da nga war xam nooy jeexale te booy jeexal dangay ngay da ngay da ngay da ngay clôturer c'est-à-dire projet yi fi nekk tali yi ñu ñu ñu ñu ñu toj nañu nañ ko terminer rapidement nit ñi mën circuler correctement mu mën préparer ki koy remplacer wala ku muy désigner pour que ñu mën dem ci campagne électorale bu stable parce que réew mi instant bi bu ñu waxee buñ ko waxul c'est instable buñ ko waxee buñ ko waxul investisseurs yi ñu ci bëre dugalatuñu xaalis parce que dara leeru leen ci luy am début 2024 partenaires yi ñu ci bëri xamuñu lan mooy am après 2024 moo tax tey ñëpp a ngi toog te te seen te loolu situation boobu daj fi am amaat fi élection législative am nañ nañ toog xaar et cetera gouvernement bi du dem gars yi toog di lekk xaalisu Covid bi di def lu leen neex après conséquence bi moo nekk nii c'est-à-dire nit bu munul danga koy dindi si jour bi sans lendemain et quand il y a des suspicions pour juste tranquilliser les gens il faut relever les fonctionnaires yi nekk ci kii wala ministres yi par mesure conservatoire mais nit day nekk def lu gën lu gën yées des fois il est incriminé nit ñi di génnee ay preuves nga toog rek bàyyi ko fa parce que en réalité politique la du noonu nañu corriger ñu delloo suñu xel xam ne dañu war investir muy produit résultat xam ni dañu war góor góorgóorlu si bon gouvernance bi réew mi dañ ko bokk te Sénégal tey dafa waroon weesu fii Senghor waxoon na 2000 euh, Dakar sera comme Paris yegguñu foofu on a soif et Sénégal émergent bi Macky Sall di wax nii. ñun on a la conviction que duñ ko fekkee boo moytu parce que amul lenn lu ñu liggéey lu ñu jëm leen jëmale le projet d' infrastructure mais munoo infrastructure ba dàqale si àdduna bi mais jikko ngay ngay rawee say morom et asiatique yi chinois chinois yi ñoo gis même les américains du sud tey seen jikko nañu defar am yoo xam ne dañu ci tënku nangu ñëpp ni lii kenn du ci dellu ginnaaw muy ay mandat muy ay élection muy ay espace public bañ saw si mbedd mi muy di di rang di respecter ordre yooyu la dëkk yi amee consensus ba mu tax ñu développé Sénégal lu ñu fi mënti def day yàquwaat suba parce que defaruñ nit ñi te foofu la gouvernement bi lajje gestion Macky Sall si defar nit ñi la amee limite te loolu kenn mu ko baal Macky Sall moo tax dafa war dem mën na demaat nag deux mille euh, je sais pas xaw ma mu ñëwaat demandé Lula da Silva ñëw na mën na nekk mais maa waxoon waxeet xajatu fi et je pense que nañu góorgóorlu aussi pour plus de justice sociale bàyyi ku wax rek ñu dal sa kaw jël xale yi instrumentaliser leen liggéey ñu deful leneen di leen jox ay bullshit job am na ñoo xam ne liggéey yi ñu leen jox amul benn valeur te ku la jox yenn liggéey bu fa jógee dañ lay dàq te loolu dal na xale yu bëre parce que dañuy jël ay lignes yoo xam ni du lii ñu du lii ñu salaire ñu ñu ñu ñu jël fa ay nit keneen ku ñëw daf lay dindi te loolu réalité la des fois ñu naan la ay chargé de mission ñoo xam ne buñ toogee kenn xamul lan nañu liggéey loolu dañuy wax bullshit job yow sa job sax convaincre la ñi nga nekkal sax xamul li li ngay liggéey lan la te yaa ngi fayu xaalis te donc nañu éviter yooyu dem vers beaucoup plus de sérieux travailler sur l'emploi des jeune mais aussi rigueur parce que makisal Sall rigueur lay eggalee mandat am réew mi am jàmm ki koy remplacer rigueur la mën commencer pour réew mi am jàmm sinon on est sur une file euh, raide boo xam ni kenn xamul fu mu nuy jëmee wasalaam.